les gens se rendent compte que les <laughs> Fi lu mu neex neex lu mu metti metti lu mu nga jëm j'ai tout fait pour inculquer cela mu mel na pire, aujourd'hui l'action est pérennisée nit ñi xam ni ñepp fi ñu jëm si kon da pour boo liggéey am ñu la la nga ñu fay lekk ci biir buñ ñaan dañuy xol jublu suñu borom rawate nag ci weerum koor gi nga xam ni chaque premier dimanche weerum koor bu ñëwee suñu doyen Ngolo Badiane def ko moom aussi ñu koy ñaanal wérgu yaram bu mat sëkk ñaanal ko fan yu gudd parce que lii mu def du lu ndaw lu rëy la continuer nag gëm lu ñuy def parce que ay mbooloo jullit bu ñu àndee dañuy gëm lu ñuy def parce que amuñu dara lu dul lislaam amuñu dara lu dul mbokkandoo boolandoo lépp té li ñu dajé nga xamni ñaan nañ fi ñaan ñaan suñu borom ñaan sa ñaanaat suñu borom suñu borom li nga xamni mom lañu bëgg mu mottali ko ci jamm ak salam tay nag ku taxaw fi sa xol toy na ndax xam nga ni ñun ñepp fi la ñuy mujj comme fi la ñuy mujj lool motax kenn ku nekk bo ñëwé rek sa rankoñ dafa dal sa dënn ñoo ngi ñaanal yalla liñ fi ñaan yalla nako yalla nangu yi fi kamil yi fi ya, yiñ fi wacce yàlla na baawaan ci Sénégal waxuma la ndar rek na baawaan ci Sénégal Golbert nag li mu def xamu ko def na lu rëy def na loo xam ne ba ci taatam du dañ lii rek nag mooy mooy yàlla nag mbirum yàlla la. ñëw rek pour yeesal sa kóoló rek ñëpp ñu nga xam ñëw jóge nañ fi waaye ñaan ngi jig ci boppam moo ci ëpp solo boo ko defoon ci ga sax mu mu jot waaye xër moo tax nga indi ñëw ba fii toog fii ci ñoom ñaanal leen ñoom it ñu gis waaw macha ah macha allah kii kay ku fi ñëw defe naa di nga xam ni eh, dëgg rek mooy dëgg te jullit bu nekk war nga góorgóorlu sàkku bis bu mel ni xam ni bis bi du du jaas. dëkkuwaay yaa ngi nii te kenn ku ci nekk na delloo xelam ci yàlla te xam ni mu gaaw ak mu yéex yëpp fii la ñuy mujj nañu dellu ci xul wallaahu ahad allahu samad lam yolit walam yuulat walam yakkuloo fan ahad moy jala jalaaloo yazul jalali wal ikram cimetière yi ça fait ça fait ça fait ça fait 5 ans maa ngi xeex le maire Amadou Mansour Faye waxoon nañu daaw nii dana trouver ben cimetière bu bess maa ngi koy lancer waat appel parce que jotna ki fess na del ken amatul foo suul noonu defaral cimetière bu bees nag à l'image des grandes villes ou des villes jeunes comme Touba comme Dakar. dëgg la cimetière yi muy cimetière Mariam Yàlla dafa fees na fi mu toll moom fees na waxoon nañ ko fi euh, waxtan na ci aussi ak administration territoriale yaakaar naa diggante Gandon ak Ndar fële ci ngalel am nañ fa espace bo xamni ni réservé nañ ko donc pour ay cimetière yu bess prévoir nañ ko te gëm naa ni peut-être fi rek ay quelques mois dañ ko clôturer euh, préparer que de telle sorte que nit ñi dañ fa mëna yobu yóbbu ay néew euh, vraiment mu mu per nga xamni ne li ñu am fii comme fees na danañu mën a permettre ñu gëna mëna en tout cas dem euh, donc préserve vie parce que c'est Jérusalem, aussi après nañ